waaw bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñoo ngi ziare mbokki taalibe yi ñëpp di ziare membre yi mboolem kuréel euh, daayira Matlabul Fawzayni euh, di leen xa yëgal ne ñu ngi ci tey ñu ngi ci bis bi nga xam ne moom la ñuy organiser année bu nekk ren doon deuxième édition kon ñu ànd ko mbokki taalibe yi yëpp ci wàllu organisation ak euh, lépp loo xam ne bis bi laaj na ko ñu ngi fii feggoog jëwrin sëñ bàcc ak euh, membre yi nga xam ne ñooy bureau bi ñu nekkan ci liggéey bu am solo ci wàllu euh, daara ji rawatina ci wàllu bis bi kon dañuy jox euh, jëwrin sëñ bàcci mu sànni ay kàddu ci li nga xam ne moom la ñu tënk ci daara jeeg ak wàllu bis bi mu mu jox ci ay leeral bisimilah sëñ bàcci asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuy ñëpp di leen jaare bu baax di rafetlu jotaay bi ñu suñu borom boole ñu ci liggéey sëriñ bi di nuyu nag mboolem waa daara Madabul Fawzeyni rawatina ñi ma fegool ci sama ginnaaw di yow Moustapha Ndiaye ma jox kàddu gi ak sëñ Pape Diop ak sëñ Mbaye Ndiaye imam ak sëñ Aliou njaay ak mboolem ñi topp ci ñoom rek ngir seen taxawaay bu rafet seen pësif ak seen pas ci bis bi ak ci liggéey sëriñ bi ndax saa su nekk ñu ngi ci gunge di ci xalaat xalaat yoo xamante ne nii avenir u ji la ak lu jëmale liggéey Sëñ Tuubaa bi kanam kon loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax ndax mënuñoo ñàkk bañ a liggéey sëriñ bi ndax loolu moo tax mën naa ne suñu borom binduñu rawatin nag bu ñu yàlla boolee ci ñu bokk ci ñu ñuñu sëriñ bi ñu am ci tool boo xamante ni nag suñu borom dogoon na ñu koy bay muy jëmmi daara ji nga xam ne mooy daara Matlaboul Fawzayni euh, di sant it suñu baay bi nga xamante ne nii moo ñu yaatalal liggéey bi bañ mañ koo jàpp am ak jàpp jàppandal di ko defee fii ci kër gi muy suñu baay Malick Ndiaye moom it ñu ngi koy sant di ñaan yàlla wéral ay cëram te guddal ak fanam gannaaw loolu nag daara ji danañ ci leeral ku nekk xam li sababom ak fi mu jaar ci taxawaay ak ci pas-pas ak ci pëseef béyeg si fii tey ndax ñu ngi ko euh, njëlbeen gi muy sosom mu ngi tàmbalee ci 2018 11 novembre mu tombeek ñibbi sëriñ bi ci tukkib géej gi bis boobu la daare bi njëkk a taxawu def daare fii ci koñ bi ba ko defee it ñi continuer nekk ca loolu ba gis ne war nañoo dem wut aw tur ñu dem ci sëñ Muntaxa ziyaare ji ko ut fa mu tudde daara ji Matlabul ni ñu continuer ca di ci góorgóorlu di ci def ay jéego ba delluwaat ziyaare ji Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci Poroxaan ziyaar boobu nag mooy sababu bis bi nga xamante ne nii ñu ngi koy amal tey mu nekk ñaareelu édition ndax daara ji ku leen xam-xam ne lépp lu sëriñ bi digle ñu ngi ci ba ci bis bi nga xamante ni suñ digle woon ko ci bis xasaayit boobu mbooleem waa daara ji keroog bàyyi neen seen yitte bàyyi seen lépp dem dal ci suñu kër bàyyi Malick Ndiaye yaatal fa liggéey bi ci ni anam bi ko sëriñ bi ñu def ci suñ kéemtalaay kàttan ñëwaat. safar gi nga xamante ne nag mooy sababu li waral bis bi nga xam ne bisu suñ tuwaa saa yu yegsee dañ ko daan gàttandoo cant gu mag guñ daan def fii waaye biñ ko koy gatandoo it mbokk taalibe yi ba mu jàllee dañ cee waxtaan. gis ne murit moom lu mu mën di am ci àdduna ndigal rek moom la ci war a wëyee te ndigal mooy lépp la suñu abdulaat waxoon ne ndigal mooy ubbi bépp bunt kon loole lañ xalaat xam ne ñun suñ buntu mooy ndigal ñu dem ci suñ muntaxaa ziyaara ji ko poroxaan nag ci lañ ko waxee doxinu daara ji ak bis boobu nga xamante ne ni dañ ko doon def ci amuñu ci ndigal waxtaan ceeg moom mu jox ñu ndigal ci juróom-ñaari fan ci weeru rajab muy bis bi ñuy amal tey jii kon boo xoolee ci diggante boobu daara ji dox na fi dox bu am am solo yaatal na fi yit lu bari ci ab liggéeyam boo xoolee lépp luy matériel euh, daara ji fàggu nañ ko ci seen pas-pas ak seen pasif fexe nañ it yaatal seen ab liggéey ci mboolem membre yi nga xamante nii ñoom lañ seqal liggéey bi waaye ñu ngi ko yaatal it ci képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci liggéey bi ndax liggéey bi liggéey bi Sëñ Tuubaa boo xamante nii amul yem waay te dañ koo bëgg a yóbbu ba ci kanamu sëriñ bi kon nag loolu avanir loo xamante ne ni képp koo xamante ni rek maanaam bëgg nga lu baax na nga xam ne daari mat la fausé ni ubbi nañ la seen buntu ngir gën a yaatal liggéey bi nga xamante ne ni kat ñu ngi koy def fii ci koñ bi di ko yaatal fépp ba nga xamante ni daal lii suñu yéene mooy mu nekk daara ju mag a mag a mag a mag a mag mën a taxawa taxawaayu lépp sëriñ bi ci fii ci pikin comme ni nga xamante ni ne ni ko ni ko yeneen daara yi di taxawoo rek yéene jooj lañ ci am ñoom ñi nag euh, loolu ñu ngi ñu ngi ciy bàyyi xel ñoom ñu ngi ciy bàyyi xel ñu ngi ciy dox ay jéego ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax a baax kon suñu Moustapha loolu laay ubbeegum ci suñu ay kàddu ma dellu la waat la kàddu gi. macha allah sëñ Bàcc si la mi nga xam ne moom mooy jëwriñu daayira bi. ci kàddu yooyu nga xam ne am na solo lool macha allah kon dañuy dugg ak yow rek ci wàllu bis bi nan lañ ko lan lañ ko pare nan lañ ci fas yéenee doxe ci wàllu organisation ci wàllum njàng meeg yu demee noonu dañ la ci laaj rek nga nga dugal ñu ci tuuti rek bismillah. gannaaw loolu xëy na ci wàllu njàng mi ak ci wàllu bis bi. ku nekk gis nga ne ban xëyee ba léegi ñu ngi ci taxawaayu alxuraan ak durs bi lu jiitu loolu it am na ay kaamil wàcce tolloon ci fukk ak juróom-ñeent ak liñ jàngat pour gàttandoo ko bis bi ndax bis bi moo toll noonu ci ñun waaye moo toll noonu ci ndigali Serigne Touba ñu fas yéene ko jëfe jëfin wu rafet jëfin woo xam ne day dëppoog li Serigne bi doon wax doon ñaan ci képp koy liggéeyal muy wax dil xawaa ijël lesi na daamu fi xidmatin wa hablahum maaraamu kon loole lañ xam ba tax na bis bi lépp lu mu laaj ci taxawaay rek man mbokki taalibe yi ak mbokki waa daara ji taxaw nañ ko bis bi euh, kuréel yi nag bàyyiwuñ genn kuréel wana ñëpp mboolem ñi nga xamante ni danaan waxtaan ci diine muy xaarim njaay ak sëñ bay njaay imaam mi nga xamante ne ni du ñàkk ñu jox ko kàddu ñoom taxawaay woowu def nañ ci taxawaay bu mucc ayib ngir bëgg fu ndaje njàngale fa njàngaleem lislaam rawatina njàngaleem sëriñ bi ban gën a xam sëriñ bi li nga xamante ne moom la woote kenn ku ci ne mën cee jële njariñ loolu bokk na ci liñ waajale bis bi ngir ku fi ñëw man cee jariñu ci yiw woo xamante ne nii ñu ngi koy taataane ci mbindam sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon loolu bokk na ci liñ ko waajale la ci dolli mooy bernde bernde yi mboolem taalibe yi taxaw nañ ci taxawaay woo xamante nii bu ama am solo la ba ci waa koñ bi ñoom ñëpp mobilisé wu nañ bàyyi seen ay yitte ngir ànd ak ñun ci bis bi ñenn ñi ubbi seen i kër yaatal ko ci daara ji ngir gan yi waa daara ji di am kat ñu mën leen faa dalal loolu kon wane na ne ñoom bàyyi nañ xel liggéey bi te ànd nañ kook ñun àndin wu rafet euh, jëwriñ Mama Hélène nag euh, moom taxawaayam ñëpp gis nañ ko ak suñu yaay Ayda Diouf seen taxawaay ci bis bi ba lépp loo xamante ni jëm na ci waañ wi taxawaayu mat sëkk taxaw nañ ko ci loolu it ñu leen ciy gërëm te leen ci sant waaye daal kulim juum waaye bis bi nekk toll nañu foo xam ne daal maanaam suñu xol ak suñu xalaat li fi nekk maanaam mënee su ko wax waaye li ci liñ ci dolli rek mooy xam naa jox sëñ Mbaye Ndiaye imaam mi nga xamante ne lépp luy daara ji di sukkandiku ci wàllu xam-xam ci moom lañ koy jëlee euh, daara ji it chaque dimanche waxtaan yi amal ci jëmmam moo koy génne ngir ñun ñëpp ñu mën ci jariñu kon moom lay jox kàddu gi euh, si Moustapha sëñ Bàcce macha allah kàddu yi am na solo lool tubaarkàlla euh, wax dëgg yàlla mate na la lool bala ñuy àgg ci sëñ Mbaye Ndiaye ñu laaj la tuuti rek euh, noo gisee bis bi daaw ak ren maanaam avancement bis bi noo ko gisee am na yokkute bu baax wala daal. loolu moom mboolem ko fi ñëw rek di nga xam ne fañ toll woon daaw ak fiñ toll ren sore na lool ci jëf te sëriñ bi moo toll noonu sëriñ bi moo amut tànk ginnaaw moo am tànk kanam ci képp ku ko jëfal te sellal ko te loolu nekk na ci suñu biir suñ borom dimbali nañu ba suñu xol yi maanaam jëf ju rafet ak jëf ju sell ñu ngi koy jéem te ñaan yàlla teel nu jéem googu nuy def ba liggéey bi àgg fu kawe suñ njort waaye nan lan lu ñu defoon daaw rek ren yokk nañ ko moo xam ci alxuraan moo xam ci xasaayit moo xam ci taxaw bis bi moo xam ci bernde moo xam ci lépp lu mën a doon suñu borom defal na ci ak yokk kon yokk googu nag ñu ngi koy sant ñu ngi ci sant yàlla ak sëriñ bi di ñaan mbooleem loo xamante ni nag daara ji ñu ngi koy mébét ci liggéey bi yàlla nañu ko yàlla gën a téyel ba yokkate googu nekkuluy sax ba faw ci barke Cheikhul Khadim macha allah kontaan nañ bu baax wax dëgg yàlla euh, ko gis bis bi rek ni mu commencé xam ne kàddoom yi nii lu ko lu ko leeral la macha allah kon ñu ngi kontaan bu baax ci ci ci ci wàllu organisation boobu nga xam ne yéen ñii rek yéen a ko yéen a ko yéen a ko liggéey ba ba mu demee nii kon ñu jox euh, sëñ Mbaye Ndiaye mi nga xam ne maanaam mooy ustaasub daara ji rek lépp loo xamante bi ñi ngi koy jàngale ci daara ji rek moom mooy ki nga xam ne moo ñu koy taxaw ci ci ci lu ci mu gën a amee solo wax dëgg yàlla bisimilah kon jox ko kàddu mu waxtaanal ñu ci ni nga xam ne moom la daayira di jariñ ak ni nga xam ne moom lay yokk ak li nga xam mu gën ñoo soññi ci wàllu liggéeyal sëriñ bi bisimilah sëñ Baye Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bisimilah alhamdulilah ala sayidina muhammad sallim kon mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi nuyu di nuyu waa daayira bi ñëpp di nuyu jël nuyoo bi di ko teg ci loxol jëwri si ma sàmba mu jaale na ko ñu mboolam ko ne ci daayira bi bàyyiwuñu kenn muy góor mu jigéen mu mag muy ndaw di sant Baye Malick mi nga xamante bi moo ñu yaatal comme ni ko suñ ma sàmba waxee ci daara ji ñu ci yëngoo <coughs> ginnaaw loolu nag ni ko Moussa Ndiaye waxee léegi waaw daayira moom niñ ko xamee rek euh, mbooloo moo koy def te mbooloo moom euh, luñ maase di def bu bokk ak kenn koy def niñ koy faral di waxee kon mbooloo nekk lu am solo kon daayira nekk na loo xam ne lu am solo la ndax soo beroon fee di julli sa julli bopp ak mbooloo mi julli bokkuñu ëppale na ñaar fukk ak ak juróom-ñaar ci daraja waaw soo beroon fee di diris xasida ak mbooloom mbooloom bokk di diris xasida bokkuñu ba tey waaw ah, mbooloo mais malaayka dañuy wàcc ci ñoom di leen di sant di leen gërëm yow nag mën naa am doo am loolu kon mbooloo lépp luñ maasee di ko def am na solo rawatina nag mbooloo moo xamante bi dafa dugg ci biir Serigne Touba ñu ne mbooloo mii mborom Serigne Touba dañoo daje dañoo daje dañoo daje di liggéeyal Serigne Touba loolu nekkati benn beneen garaat waaw ndax liggéey jaamu yàlla bi ngay def def ko addi ci Serigne Touba ba tey ji bokkut ak jaamu yàlla gi nga def xam ne ko def noonu rek nga def noonu rek mën na sax su borom mën kaa nangu yàlla moo xam waaye su fekkee da ngaa da ko def dugal biir addiya Sëñ Tuubaa suñu borom mën na la yéegee ci daraja Sëñ Tuubaa rus la rus Sëñ Tuubaa ba nungu sa liggéey même su fekkee liggéey bi sax des na maanaam suñu borom nungu liggéey bi ngir ki nga ko defal addiya ndax kooku moom moo ci ma kon loolu lu am solo la te xam nañ ne mbooloo mi saa bu ñu saa bu yëngoo li ñuy def lépp ñu ngi koy def ngir def ko liggéey ko Sëñ Tuubaa kon euh, loolu nekk na loo xam ne am solo la te daayira li ñu ko waxee dafa nekk loo xamante bi saa boo ci nekkee rek da ngay boole yu baree baree bari euh, jullit yu ànd boole seen bopp ndax gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne jullit ñi dañoo mel ni benn benn tabax xam nga benn tabax soo ñu dundum benn birig rek mi nga tàmbalee am yarax yarax mi nga tàmbalee seen ba tey ni mu ko misaalee ne jullit ñi dañoo mel ni génn jëmm suñu suñu euh, tànk méttee bopp métti na su biir méttee loxo métti na kenn du amati jaam ci cër yi soo gisee nit ki sax da nga yaakaar ne yaram yëpp a feebar fekk benn bopp rek ko métti li ci des lépp métti wut kon noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam misaale kon daayira bokk na ci ay njariñam ni mu boolee jullit ñi euh, boolee seen xol ñu tappante di di di di nuyoonte di muuñ ndax dañuy wax ne saa bu nit nuyoo muuñ rek suñu borom bi bind ko ti fukki fukki tiyaaba bind ko tiyaaba ju bari bokk kon kon kon loolu lépp day am ci ci ci biir euh, mbooloob daayira kon loolu bokk na ci ci ay meññeetam yi nga xam ne moom la daayira jur bokk na ci meññeet yi nga xam ne moom la daayira di jur mooy joxe sa ñaq ngir jëme suñu borom liggéeyal ko sëriñ bi loolu bokk na ci ay meññeetam ku ne xam na ko ndax daayira lu soo ci bokkee am nay jaayante am nay teg am na yu ne te loolu lépp ci poosu kenn ci ci waa mi mi ngi jëm ci poosu liggéey euh, Serigne Touba mën naa ne maam liggéeyal ko Serigne Touba kon gis nga ne alal jooju ngay génne ah, te suñu borom nee na wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazri fa inna Allaha ya'lamu lépp lu ngeen jëfee ci lépp lu ngeen dépassé wala lépp lépp lu ngeen def suñu borom xam ko te nee na wa ma nee na man yàlla maa ko wóotal maa indi leneen kon loolu gis nga bokk ci biir njariñam kon ñu gis ko ci mu nekk ci daayira waaw bokk na ci njëriñi daayira ba tey euh, mbooloo mu daje di ñaaxante ndax fa mbooloo mu daje su saa mu amee dinañ am dañ ñaaxante seen diine dañ ñaaxante ci sëriñ bi te loolu rek dafa nekk lu am solo ndax benn masala rek nga xam ko ci diine nekk na lu am solo dafa am benn ku bokk ci borom xam-xam yi ba mu ba ko ba mu bëgg a génn àddina dañ na ko waxal gan jaamu nga bëgg mu ne naa xamul benn masala ci diin rek maanaam naa xam lu lenn lu may jariñ sama diin rek ma xam la ko ndax xamlu gi ni mu xamee njariñ la ci nekk te loolu dañ koy fekk ci biir daayira ba tey ji ñaaxante ci biir sëriñ bi tamit ki la ki la ñaax ci sëriñ bi ba ngeen gën sopp sëriñ bi kooku ràmm na la ndax moo euh, moo wax sëriñ bi moo wax ne ki nga xamante bi euh, dafa ma sopp su ëllëgee su dekkee yomul xiyaam karamam day day leer mel ni ñi nga xamante bi seen kanam ni ñi texee ni seen kanam leere noonu la ki ma sopp noonu la kanamam di leer ëllëg ndax suñu borom dafa yow ma tabyadu wujuhun wa taswad wujuh fa ama alladina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fa zuqu al'adaba bima wa ama alladina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha di leen wax ni seen di leere moom ki sopp noonu la noonu kanam di leere kon ki xam ne bi moo wax ci sëñ bi loo xam ne nga tax na nga gën a sopp sëñ bi wala ci seen mbokk ci wala ci biir daayira ñu ñaaxante ba ku ne doole ko ak sopp sëñ bi kooku na nga xam ne moom bokk na ci ñi la ràmm ndax ndax dañuy wax ne euh, xam lu moo mel noonu kon loolu lépp bokk na ci njaay ñi daayira ñu yox te lim lépp jeexal ko dañuy wax ne euh, li li li baax lépp kenn mënu ko wax waaye nag soo ci waxee lan rek day yóbbaale li ci des lépp kon daayira nekk na loo xamante bii lu am solo la daayira bi di ko wax dëgg ni ko suñu Masamba waxee biñ ko taxawee la yàggut waaye am na ay ay jéegoñ ci jote def yu am solo waaw ñu koy sant suñu borom ñaan suñu borom nag mu dolli bu baax a baax a baax ndax moom dañuy wax ne moom euh, sëñ loo ko defal rek maanaam doyut te loo ko defal rek sa sa sa bopp nga sa bopp nga defal waaw kon daal euh, mi ngi noonu ñu ngi sant mbooloom ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom gën ñoo dëgëral nag ñu bañ a euh, yëg suñu bopp ci dara gën ñoo may ak sellal ngir jëmbam waaw ndax loolu mooy mooy li ma faral di wax rek mooy fondement mbir yëpp ci loolu la tege jëf joo jëfee ci kaw fondement bi lay tege loo tabax rek ci kaw fondement bi lay tege saa boo bi rek li ba nekk ci 100 étages téeméer étages ci kaw buñu mabbu fondement bi saa bi rek sa étage ba nga mujj tabax ci kaw téeméer téeméeral ñëpp ay daanu ci suuf kon loolu suñu borom di wax nag moom lay junj lu mel noonu naan la in ashrakta la yaxbatana amalu soo bokkaale suñu borom rek di ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk maanaam la nga jëfal lépp day màbb waaw kon euh, ñaan suñu borom dëgër bu baax euh, sàmm ñu bu baax a baax di jégalu bu baax di tuub euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw macha allah sëñ Baye Ndiaye ci kàddu yu solo yooyu macha allah nag noonu koy defee ci daayira bu jot rek kon ñu koy jaajëfal ci njàngale mi nga xam ne mi ngi koy def ci daayira bi chaque dimanche Euh, mu doon jàngale yoo xam ne yoo am njariñ la saa bu wàccee kàddoom rek ñëpp dañ koy rafetlu te dañ ciy jariñu bu baax a baax a baax macha allah kon ñu jox euh, sëñ Aliou Ndiaye mi nga xam ne moo yor wàllu communication ci ci ci daara ji te it euh, mu yor wala organisation bi tamit ci bis bi di ci taxawu taxawu bu am solo macha allah daa mel ni bii ñëw sax ci ci lañ nekkoon ñoom kon ñu jox ko kàddu rek mu sànni ay kàddu yoo ay leeral ci ci wàllu googu bismillahi irrahmani irrahim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin seydina muhammadin wasallam mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu Cheikh Moustapha Ndiaye ñoo ngi lay delloo ziar tamit di nuyu daaira Matlabul Fawzayni Pikine di nuyu tamit mbooleem ñi nga xamante ne bii nii ñoom lan àndal liggéey bi ci ak ni ñuy doxee xam naa du ja aajowoo ñu ci jaaraan ndax sëñ Masamba jaar na ci ba jàll leeral na tamit li ci mat a leeral waaye comme ni ko sëñ Moustapha Ndiaye waxee rek ci li ñu dénk ci liggéey bi muy wàll communication ak lu jëm ci organisation ci biir liggéey bi mu fekk ñu nag sax ci biir liggéey boobu ci lan nekk doon ci def ay jéego yoo xamante ne bii nii lépp ngir lu fa yéene jagal bés bi nu nekk la euh, kàddu yin ñu jox nag euh, di kàddu yoo xamante ne bii nii du sunu man waaye mbooloo mi nu àndal seen ak woyof la ak seen ak euh, dégg ban mën a wax ak ñoom ci lépp lu ñu ñu dénk ci liggéey bi ñu ñu fas yéene cee wax waxtaan ak ñoom euh, ñu déggal ñu ci loolu euh, wax nag nekk loo xamante ne bi daanaka ku ñu ko dénk rek dénk nañ la lu xaw a diis waaye ñoom tamit woyofal nan ñu ko woyofal goo xamante ne bii euh, luñ ci wax rek ñoo ngi ciy gis ay njariñ ndax jëfe gën koy jëfe liggéey bi di liggéey boo xamante ne bii nii liggéey bu yomb la liggéey bu yombul la li tax mu yomb mooy Euh, jëf lu baax nekk ci yoonu sëriñ bi euh, ak jàppandal la ak yombandal la ci képp koo xamante ne bi day sàkk lu baax kon loolu tawféex dëgg la euh, yombul nag ndax ndaw lu jóg fas yéenee liggéeyal sëriñ Touba fas yéenee dem ci yoon wu baax seytaane day jóg tamit laxasaayu fas yéenee ko faagaagal moom it loolu nekk loo xamante ne bii day woo jaayante goo xamante ne bii nii moo lay dimbali ak pas-pas ak ndimbala suñu boroom ba nga am ci ak mucc ba nga am ci tamit ndam euh, liñ ñu dénk nii nag di kàddu euh, maanaam léeg-léeg sax ngay wax wax joo xamante ne bii nii ña lay teewlu di la diglu ñoo la gën a xam sax bu baax a baax a baax li ngay wax waaye ñoom seen ak yaatal waa daara ji ak seen ak neex a nekkal euh, ak seen ak woyof doo ci gis kenn koo xamante ne bii nii dina la won ne sax yow li ngay wax nii kat nii nga ko war na waxe wala euh, li ngay wax nii euh, demewul noonu te fekk na am na ay rëcc yu ci am loolu mooy neex a nekkal gi na neex a nekkal ak ñoom organisation bi nag moom ci ak gàttal rek comme que ñoo ngi ci biir bis bi te bis bi jeexagul fas yéene nan koo tàmbalee ci suba gi ni ko sëñ Massamba si la waxe ba incha allahu fajar euh, lépp di ci sàkku ndimbalu sun borom di ci sàkku tamit ngërëmal sëriñ Touba mi nga xamante ne bii mooy borom liggéey bi euh, di tamit xamal ne daara ji ni ko sëñ Moustapha Ndiaye waxee chaque jamono bu ci nekk ci semaine yi dinañ ci amal daaira muy tombe ak dimaas nin koy doxalee di njàngam xasaayit jàng alxuraan waxtaan ci lu ñuy yee ci diine waxtaan ci lu ñuy dolli ci Serigne Touba euh, te loolu sëñ Mbaye Ndiaye mi daaneel kàddu gi moom mu ngi ci nàmmat xol yi bu baax di ci tette tamit xale yi ba nga xamante ne bii nii am nañ ci ab yóbbal boo xamante ne mën nañ koo yóbbuloo di ci tamit euh, euh, profito di leen xamal ne daara ji day daara joo xamante ne bii nii xëy na Euh, day door di bëgg fas yéenee dox ci ndigalal sëriñ bi fas yéenee nekk ca kanam fas yenee dox lu baax daara la joo xamante ne bii tamit daara jun yaatal la joo xamante ne bii am na ay soxna yu nooy àndal ci liggéey mi comme ni ngeen koy gisee am na tamit ay mag ñoo xamante ne bii sunu ay kilifa lañu doon ci liggéey bi te euh, comme ni ngeen koy gisee ci biir euh, organisation bi di ngeen leen gis su soobee suñ borom am ay tuut tànk yoo xamante ne bii tamit ci biir liggéey bi euh, euh, ñoom lan àndal liggéey bi di xale yoo xamante ne bii ni ñu am pas-pas lan di xale yoo xamante ne bii ñunu dimbali lan ndax euh, mag foo dégg rek ñu koy wax xale dafaa nekk moo tax ñu naan mag bu fekkee mag kase kon du jar ñu naan bu fekkee xale amul du jar ñu naan mag bu fekkee tamit mag amul du jar ñu naan xale kon xale yi nga xamante ne bii ñoo ànd ak ñun ci liggéey bi te neex a àndal te euh, tan leen di tette ci yoonu sëriñ bi ñooñu tamit ñu mat a ñaanal lan ñu mat a tamit euh, euh, jàppale lan ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi nga xamante ne bi moom la ñu ànd ak ñoom nga xam ne bu la kuréel Matlabul Fawzayni bu kuréel bu mag bi am na ay kuréel yoo xamante ne ay tuut tànk lan yoo xamante ne bii nii jamono bu ñuy liggéey ñoo ngi ànd ak ñun liggéey bi ci nani ni mag ñiy doxe ñu topp seen i tànk kon nag liggéey bi mi ngi noonu sëñ naa fi mu ñu fekk fekkan na ñu nekk ci ak gëstu goo xamante ne bi ak nu ñuy gën a jagale bis bi xam naa ci kanam dinañ gën a doxal suñ gënee doxal rek di ngeen gis liggéey bi nga xamante ne moom lañ doon liggéey te pareegul incha allah te bis bi laaj ko dinañ ko jàllale bu soobee suñ borom ci ak e, gën a gën a teewlu bu soobee suñ borom e, xam naa nag di leen jaajëfal nag yéen tamit ci kàddu yu am solo yi nga xamante ne bii nii kilifay daara ji daaneel nan ko fi muy kàddu njariñ ak kàddu yoo xamante ne yun mën a yóbbaloo ci bis bi la bis bi daal la ngi noonu noonu lañ ci fas yéene ànd di ci ñaan ngërëmal yàlla sun boroom ak euh, ngërëmal Serigne Touba di di leen jaajëfal bu baax sëñ Moustapha Ndiaye ci kàddu yu am solo bisimilah. waaw ñoo ngi lay jaajëfalaat bu baax Serigne Aliou ci kàddu yooyu nga xam ne yu am solo la te it euh, wax dëgg yàlla liñ la dénk mate nga ko lool te it yaa ngi koy defee ni nga xam ne. moo gën a euh, mucc ayib kon ñu la ciy jaajëfal macha allah di la gën a encouragé rek euh, yàlla gën laa kattanal gën laa may euh, xolob muñ gën laa may làmmañ woo xamante bi moom nga koy waxee macha allah kontaan nañ bu baax a baax ci sa ci sa liggéey kon ñu jox sëñ Pape Diop rek mu sànni ci ay kàddu moom mi nga xam ne lépp loo xam ne daara ji mi ngi koy def rek ci noot yi yëpp moom moo koy noté def ko noo xamante bi lu ñu soxla rek buñ nee sëñ Pape Diop lañ ca financé woon ak yëpp da koy mën a génne mu doon liggéey boo xamante bi lu yombal daara ji la li nga xam ne ñu moom la ñuy bëgg kon macha allah kon ñu jox ko kàddu yi mu mu sànni ci ay kàddu bismillah bismillahi rahmaani rahim <coughs> waaw ñu wax dëgg ma teeku woon sax nag wax dëgg yàlla waaye nag comme ndigal la rek ñu sànni ci ñaari kàddu ndax wax dëgg yàlla li fi jotee jaar mate na waxtaan bi yëpp maanaam dara desu ci daal waaw comme ni ngeen ko déggee rek dara yaa noonu maam loolu rek mooy suñu yitte lu liggéeyal sëñ bi donc donc moo ñu tax a jóg daal te am nañ ci yaakaar ndax boo xoolee ni ñu àndee liggéey bi ak ñun ñu ko séq ñi nga xam ne ñun la waa daayira bi jiital ci liggéey bi boo xoolee niñ koy doxalee ñu mu nekk nekk na lu am yaakaar daal loo xam ne nii baam buñ ci yàlla dimbalee mosul ñu ci cet ak yooyu bu soobee yàlla dinañ ko doxalee niñ ko bëggee comme ni ko Aliou waxee rek nit bu la jiitalee ba pare te wóolu la ci li la jiital maanaam lu mu diis diis diis dina la ci dala yombalal na la ko taxamu ko moom nag lañ ko séqeek ñoom ñi ñu bokkal daayira bi nga xam ne daanaka ñu fi nekk ci di daje ci ci daayira bi magante wuñu magante bi dara daanaka ñun ñëpp presque benn génération lañ waaw ñoom nag bu ñu jiitalee du ñu defloo ak du ñu dindiloo te comme ni ko Aliou waxee léeg-léeg sax ñenn ci dàq la ko mais comme euh, yow daal lañu la ñu nam ma jiital daal te wóolu la ci liggéey bi di la ko yombalal tamit fu ñu toll ñu ngi leen ci sant bu baax tamit di leen ci gërëm di leen wax ne ñun daal ñu ngi nii rek ci service su daayira nekk daayira bi lañ nekk lépp lu ngeen gis ne maanaam buñ ko defee du jëmale daayira bi kanam la bu ngeen ñu ko waxee yàlla nañu yàlla may xolub nangoo ko ànd ak yéen te bañ cee gis dara dara suñu bopp mu ngi noonu daal kàddu yi mate na wax dëgg yàlla wax moom ku ma dégg xam ne du samay affaire mais comme. ni ma la ko waxee rek comme dañ ma ko jox rek moom il faut que ma sànni ci ñaari kàddu waaye ñi ko ñi ko yor ñu ngi koy matale bu baax macha allah yàlla nañu yàlla teel liggéey bi suñ ko sëñ Baye daal di ñaari fu ñu toll ñu bañ di gis suñu bopp te ak lal ko kiñ koy liggéeyal nangul ñu ko ca làqal ñu ko fu yàq yeegul daal maa ngi santaat bu baax di gërëmaat bu baax di jéggaluwaat kàddu yi. waaw macha allah. Euh, sant nañ bu baax a baax dëgg yàlla euh, seenu pësiyëf ak seenu njàmbaar ci liggéey bi ndax boo gisee mboolem post boo xam ne rek jaar nañ fa ñañ ko joxoon daaw ñoon lañ ko joxaat ren waaye li waral loolu mooy seen ak njàmbaar ndax daaw gisuñu benn déception boo xam ne kañ ko joxoon gis nañ ko ci moo tax ñu yëkkatiwaat ko rek jox tegaat ko seen loxo kon poste yooyu nga xam ne am nañ ko ci daara ji wax dëgg yàlla képp koo xam ne jox nañ ko rek ma nga cay def képp kàttanam ci ci mboolem secteur secteur yi daara ji ci organisation bi cuisine beeg mboolem loo xamante bi daara ji organiser na ko rek ñu ko joxoon moom lañ ko joxaat te it gisuñu ci benn manquement boo xam ne am na kon dañ leen di gën a jaajëfal rek gën leen a encouragé na lu ciy manqué rek matadik doomu aadama lay doon mais la leen ci war lépp dañ koy def seen kem kàttan doomu aadama nag léeg-léeg mu manqué waaye wax dëgg yàlla ñu ngi ciy góorlu ne ñu leen ci gën a ñaax rek gën góor góorgóorlu gën a jàpp rek xam ne liggéey bi lool la lépp loo xamante bi doon na ci lu baax yàlla ñu suñu borom gën a kàttanal ju gën caa nekk ci gën na mu gën a baaxee waaye lépp loo xamante bi suñ borom da koy tere ñu ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu musal ñu ko te soreel ñu ko te it eh, musal ñu ci seytaane ak làmmañ te it dimbali ñu ñu gën a ànd gën a booloo ndax loolu mooy njariñu daayira mooy gën a booloo ndax ñi nekk fii ñëpp xañ na li leen gën a boole mooy daayira bi te boole googu noonu booleeg sëriñ bi la te booleeg sëriñ bi mooy li ëpp solo ndax mooy booleeg yàlla mooy booleeg yonente bi kon nañ gën a góorlu bu baax rek gën a jàpp te bàyyi te it comme niñ koy waxee rek eh, liggéeyal sëriñ bi moom tànki kanam rek la am tànki kanam yooyu mooy li koy firndeel nag mooy ñu gën a dëggu rek ci liñ nekk boo dëggoo rek sëriñ bi gàttandoo la ni ko sëñ Muntaxa di waxee. ñoo ngi ziaraat mbokki taalibe yi ñëpp di ziaraat euh, mboolem koo xam ne teew na ci bis bi rek ñu feggoog euh, ñaari jëwriñ yoo xamante bi euh, jëwriñ yi daayira lañ ci gox bi lépp ci di ci gox bi ñu ànd ak ñun liggéey bi tamit ànd goo xamante bi ànd goo am solo la. Euh, muy ki nekk sama joor di jëwrin Sayer di jëwrin euh, daayira Nuuru Daarayni ak euh, jëwrin sëñ sëñ Baara di jëwrin kuréel xidmatul xadim te it ñoom ñu ànd ak ñun ci mboolem loo xamante bi rek dañ ciy yëngu ci na mu gën a rafetee ku mel ni jëwrin Sayer ñoom daanaka kuréel daayira bi ak daayira bële rek benn la mu doon ñu doon ñoo xam ne ñu jàmbaar lañu wax dëgg yàlla lu ñuy yëngu rek ñu nga ca ñoom it lu ñuy yëngu ñun tamit ñu ngi ca ñu ànd ñu ànd ak ñun ci ci ci liggéey bi ci bis bi ba ñu xëyee ba léegi ñu ngi ci du bàyyi seen yitte yëpp nekk ci kon ñu jox ko ay kàddu rek mu sànni ko ci diggante bi bisimilah jëw din sayr aousubillah min asheytan rajim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabi rahma asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngi nuyu mbokk taal bi yëpp di siyaar ñëpp di bala ak ñëpp di bal ak ñëpp bu baax di ñaan saabara bi yàlla liggéey bi ñuy liggéey mu defal ñu tawféex Sëñ Tuubaa nungul na ko boole ko ci liggéey yi baax ñuy santaat yàlla bu baax comme ni ko sëñ Moussa waxee yaakaar naa nooru daare ni ak Matlaboul Fawzayni benn lañ ndax liggéey bi yëpp ñoo ko bokk lii nag di lu am solo ndax ab taalibe moom fu mu nekk ñuy liggéey sëñ Tuubaa daa war a jàpp ne moom moo ko war a def ndax liggéey sëñ Tuubaa moom dem na ba toll foo xam ne moom maanaam nekkatul loon naa ñee ñoo koy def ak ñee ñoo koy def maam foo nekk ñu fa liggéey sëñ rek jàppal ne ca nga bokk ci liggéey boobu da nga caa war a da caa war a bokk da caa war a jàpp da caa war a jëf maam lool lañ jàpp ba maanaam boole daara yëpp muy benn ba lépp loo xam ne luñ nekk la ñu ñun nekk ci ak ñoom ñun tamit lépp loo xam ne lu nekk la ñu nekk ci ak ñun loolu nag ñu ciy sant yàlla bu baax ndax loolu ak tawfeex rek lay yokk ndax mbooloom Sëñ Tuubaa moom nuñ gën a baree nuñ gën a takkoo tawfeex ci rek lay la la la la lay yokk kon loolu ñu ngi ciy sant di ci am mbégte bu baax di ñaan yàlla Sëñ Tuubaa teel ñu ko ba baax ba liñ ci yéene ak liñ ci mébét Sëñ Tuubaa tegal na ko fa tegaloo fi kaw suñ jot ñun daal kàddu yi sant la ak kàddu yi mbégte ak kàddu yi ñaan sëñ Tuubaa teel ñu ko ba lañ ci bëgg ñu man ko am na nga xam ne loolu ko bëggee ñu ngi santaat bu baax jërëjëf sëñ bi. macha allah jëwrin Sayer ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne lépp pëseef la ak euh, bëgg rek euh, liñ koy waxee rek dañoo bokk loo xam ne mënuñu koo séddoo muy sëriñ bi moo tax lépp di benn rek ñu feggoog tamit jëwrin sëñ Baara di jëwrin day daayira xidmatul xadim te daayira boobu mooy daayira bi nga xam ne moom lañ pérene tey jii bis bi euh, ñoom it ñu am wax dëgg yàlla taxawaay bu am solo bañ jàppee bis bi ba wax ko ba léegi ñi ngi ciy def seeni xalaat ak lépp loo xam ne mën nañ ko te it bis bi tey jii gis nga ni mu demee ba xëyee ba léegi ñi ngi fi lu ñu jàpp ñaga ca lu ñu bëgg ñi ñi ngi ñu ciy xelal kon ñu jox euh, jëwriñ sëñ Baara mu sànni ay kàddu bisimilah auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim eh, ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy teewlu yëpp di tàmbale di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha xalif général des mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal yi nga xam ne naal na ko fa yéene ko liggéeyal maama mu yëgal mu yëgale ko nu kawe njortam ci barkeb Serigne Touba di ziar bu baax Euh, sëñ Moustapha mi nga xam ne ci moom lañ jëlee waxukaay gi muy suñu jëwrin euh, di ko di ko nuyu di ziarit suñ jëwrin sëñ Sayer euh, di ko nuyu moom it di wax ne ñoom xëy na kàddu yi matale ne woon na sëkk si ñoom ndax day mel ne ñetti daayira yi nga xam ne ñoo teew muy daayira Nuuru nii ak daayira Madlabul nii ak daayira Xidmatul Xadim ñetti daayira yëpp benn la kon nag mu mel ne lii tey jii su ko waa daayira madda Matlabul nii wootee euh, ba pare darajaale ko waa daayira xidmatul xadim day mel ne nañ ko daayira nuuru daara nii defal nañ ko bépp daayira bu nekk pikin kon nag ñun lii mooy si suñu warteef bis bi ñëw ànd ko ànd kook ñoom ba ba foo ko moom bëggee ndax bis bi defaluñ ko kenn ku dul Serigne Touba te Serigne Touba moom mën nañ ne maanaam lépp lu mu bëgg rek dina am ndax moom ak ñaanam day mel ne euh, nangu gi day jiitu kon ñi ngi ñaan bu baax a baax a baax suñu borom kàttanal leen kàttanal ñu ba fi nga xam ne rek fa la ko bëggee ñu yóbbu ko ba mu egg fa ci barkeb Serigne Touba ñuy tuubaat bu baax a baax a baax euh, ci kàddu yi di di di di ko yemale foofu rek incha allah ba ci kanam baax na jërëjëf sëñ Moustapha. macha allah jëwriñ sëñ Baara ci kàddu yi am solo yooyu macha allah da lool dañ lay jox benn question rek euh, maanaam tur bi ngeen ko bi bi ngeen yëgee ne dara jaal nañ leen. bis bi fan la leen toll maanaam ci ci ci ci wàllu kii bi bis bi. waaw sëñ Moustapha euh, ñi ngi santaat bu baax euh, mu mel ni laaj boobu moom dinañ ci sawar a tontu ndax maanaam bi ñu yëgee nii bi ñu bi ñu jooriñ Masamba wooyee ne ñu kat euh, waa daayira Matlabul Fawzeyni def nañu réunion ci seen cant gi nga xam ne dëgmal nañ ko waaye nag gis nañ ne ren jii yéen waa daayira Xidmatul Xadim yéen lañ darajaale bis bi. loolu nag sedd na suñu xol lool fu sedd yem sedd na fu suñu xol ndax liggéey bi benn eh, ñun dañoo nekk ci koñ bi te jegante lool ñaari daayira yi ku si nekk di bay sa waar nag ci li la war ci digg sa digg ak liggéey Serigne Touba bi eh, ñu séq jàmm séq lu rafet ba képp koo xam ne xew la nga si rek maanaam nekkul lii nekkul première fois ñun luñ mosaan a xewle dinañ leen ko yëgal yéen lu ngeen xewle yëgal ñu ko kon tey jii suñ demee ba lii sosoo yi duñ def lu dul sant si yàlla kon daal mbégte mu rëy rëy rëy lañ ci am mbégte moo xam ne am na tàmbali waaye amul yem waay di wax na nag lii maanaam euh, ñu ngi ñaan suñu borom gën ñoo sàmmal diggante bi te téel ñu ko bu baax a baax a baax a baax te te te làqal ñu ko fu seytaane yeggul ci barkeb Serigne Touba waaw am nañ ci mbégte daal mbégte mbégte bi moom xëy na du luñ mën a sax wax nii ci suñuy suñuy làmmiñ waaw waaye da fees na lool ci suñuy xol nag. waaw di ñaan rek ni ma ko waxee bis moom amuñu lu dul jàmm ab jàmm amul lu dul ñaan di ñaan suñ borom kàttanal ñu rek ñu defee ko ni ko boromam bëggee ci barkeb Serigne Touba. macha allah jëwriñ suñu baara santaat nañ bu baax a baax ak euh, jëwriñ Sayer euh, ci kàddu yooyu ak euh, seen taxawaay wax dëgg yàlla rafet na lool macha allah day ñaan suñu borom gën ñoo sàmmal rek comme niñ ko waxee gën ñoo sàmmal diggante bi ndax sëriñ bi moom mooy boole te moo bëgg ay taalibeem ñu ñu ñu ànd. kon loolu rek moo waral lii kon macha allah ñu ngi gën a ñaan suñu borom musal ñu seytaane musal ñu làmmañ musal ñu ci ay musiba ba lépp loo xam ni bi bëgg nañ koo liggéeyal sëriñ bi ñu àggale ko foo foo xam ne dina kawe suñu jot barkeb sëriñ Touba jërëjëf. kon tamit euh, jëwrin suñ baara ànd ak waa daara ji seen waa daayira ñëpp euh, rawatina jëwrin suñ suñ maam no Euh, nga xam ne moom moo nekk ci jëwriñu daara ji foofu moo nekk jëwriñu waañ wi foofu moom mu fay liggéey liggéey bu am solo rawatina rek tey ñoom ñu nekk ci li nga xam ne mooy war organisation bi bañ xëyee ba léegi ñoom ñu ngi ci ñu leen di laaj euh, taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci ak fan ngeen ci toll ci wàllu organisation bi ba ngeen xëyee bismillah ci bis bi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyuwaat ñëpp di jaar bu baax suñu jëriñ ñu fekk si di sof kàddu si jëriñ fu mu ñëwee sànq rek laataa ñu ñëw si laaj bi mooy sant ak gërëm comme ni ko jëriñ waxee rek cër bi moom rëy na suñu lool barke suñu Tuubaa Mbàkke te fonk nañ ko lool fonk nañ bis bi di ñaan yàlla suñu boroom lépp loo nga xam te ni bëgg ngeen ko si mu defee ko noonu waaw di wax ne rek ci organisation bi yaakaar naa ñoo ngi si ndax bañ xëyee ñu ngi woon si organisation baas bi maanaam defar podium yeeg waajtaay beeg lépp te lan lañ mokkee yëpp te ba ginnaaw xew lañ ba noppi fi mu ne nii li ci des mooy jublu si mise en place bi ndax bés bëgg nañ mu teel a tàmbali ndax teela a tàmbali moo waral tey li nga li nga si bëggee nga am nga amee ko noonu comme sono yi tàkk na. mise en place moo des incha allah teg siège yi si kàttanu yàlla murid di teel a waaj ñu sant sëñ Tuubaa bu baax a baax maanaam foofu daal lañ tollagum ci liggéey bi di tuub bu baax a baax. macha allah ñu leen di santaat bu baax a baax ci côté boobu ndax wax dëgg yàlla am ngeen ci taxawaay bu bu am solo am solo lool lool ndax boobu ba léegi yéen a ngi xool placement yi fi ñu war a teg li fi ñu war a tegle ba ba tey daanaka terminé ngeen côté boobu. macha allah mu doon liggéey bu am solo ñu leen ciy gën a sant bu baax a baax ndax euh, lii rek la euh, murid di jariñ moromam foo xamante bi gis na muy butt boo xamante bi war nañ koo fàtte yéen a ngi jóg pour fàtt ko fépp koo xamante bi war ngeen ne nii kan moo gën yéen a ngi jóg di ko defar comme na mu gën a yelee kon ñu ngi santaat bu baax a baax ci ci ci côté boobu di ko santaat mboolem tamit ñi nga xam ne yéen yéen a ngi ko ànd ak ñoom mu doon liggéey bu am solo macha allah kon jërë ngeen jëf macha allah.